feetu ren bi comme feet lañ wax da war doon lu neex ci sénégalais yi moo tax euh, première préoccupation mooy fexe ba gàtt buñ ci jiital muy xar waaye nag ñu fàttali ni dañu ne ko amul xarit mën naa làmb ci yeneen mooy nag wala bëy wala yeneen ñu fexe ba loolu am ba mu doy sëkk ci marché bi waaye it mu doon yoo xam ne matal na charte yi ndax xam nañ ni bu gàtt gu nekk rek moo matal charte yi li ñu xamee ni ci xayma lu ñu soxla ci gàtt en ci wàllu xar bi nga xam ne moom le ministre bi ak ñu mu liggéeyal xayma huit cent soxla loolu xaw naa takku ni ko daan defe it ñu koy yaakaar d'abord ci ñi nga xam ne mooy producteurs locaux koy mooy suñu éleveur waaye comme dafa mel ni ñaare loolu du doy moo tax dañ daan sàkku wala dañ daan solliciter ñi nga xam ne mooy suñuy voisin rawatina Mali ak Mauritanie ñu ñëwoon di ko mottali moo tax it jël nañu matuwaay fan yële ci gannaaw ci benn circulaire pour ñooñee nga xam ne dañuy ñëw pour euh, euh, mottali li ñu soxla ci réew mi ñu mën a ñëw ci dal ñëw ci jàmm moo tax ñu jëloon circulaire boobu am ndigal yi nga xam ne joxoon nañ ko ministre de l'intérieur particulièrement mu war ko wàcce ci ñu mu yilif am leen loo xam ne it jëmoon na ci ministre finance finances pour mu mën a teggil leen yenn taxes yi nga xam ne mën na diisal njëgu xar bi kon conseil interministériel bi ñu ngi jubluwaay bi mooy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ko seq ñoom ñëpp ndax gouvernement bi am na yaakaar ci ñooñu ñi ay citoyen di ay patriotes donte kenn ku ne opérateur la li muy liggéey bëgg na cee am lu lu mu dundalee njabootam mais ñu jiital li nga xam ne moom seq ñun ñëpp mooy réew mi ba mbir yi mën a jaar yoon Sénégal yëpp kontaan.